maa ngi jógee yëmbal waaw pour ñëw fii rek teeru séeri quoi wax dëgg yàlla dañ koy rafetlu daal dañ koo namoon trop ndax yi moom si suba ba léegi ñu ngi si sept heures lañ fi ñëw añoom moo ndékki mu rek pour bëgg a gis gars yi rek añoom rek kontaan si ñoom quoi di ko rafetlu bu baax jërë ngeen jëf ubbi l'observateur xibaar yi àddina wër nga képp doon xaar agsi na waaw ñu ni defoon nañ ko 2019 yàlla dogal ni jëluñu ko waaw tey ñu dem si 2022 ñu ni waaw Sadio mi nga xamante ni moom la àddina wër nga képp yaakaaroon indil nu loolu nga xamante ni nag moo di coupe d'Afrique bi tey Sénégal lu mu bon bon bon am nañu benn étoile waaye gars yi nag dañu war a xoppi bilooy dañu war a xoppi eh, dañu war a xoppi bilooy ça, nous sommes ah, fiers. Nous sommes fiers. Et nous sommes très contents de notre équipe nationale. Nous y voilà. Depuis 1960, nous sommes qualifiés en 2002, en 2019 et maintenant nous y voilà. Ah, ay boy Ismaïla Sarr, ah. ay boy Paali Ndiaye, ay ñoo Pape Pape Gueye. En 2002, booy ay 2 ans lañ amoon 3 ans. grande fierté. Ñu am à l'âge de 22 ans, 20 ans. gagné tey coupe du bi ñun lii lay am ñun ñu nous ay waay amul loolu Sénégal. Oh, amul leneen. naa la. delloo siyaar soxna si. tur nan la. man Mouhamadou Sarr nañ ma woowee. Mouhamadou Sarr. Sarr Sarr contentement boo kontaanee lu nekk dañ koy jox dañ koy jox importance Sarr laa san. fan nga jógee Sarr. Géejawaay laa jógee soxna si. ñëw naa fi depuis 7 heures fi. nekk ma añu ma ma ndox ah suuru ndox yëpp ku bilaa xar wóor yàlla maa weesu kontaan fu mu toll nii sama àjjana tee nañ ma ko jox ma deewoon léegi ñu dugal safara bëgg naa. déet waay nii nii nii nii noor. xol ba sedd na dee xol. àdduna yëpp waa Sénégal kontaan mais lii dafay wane ne football loo loo def yàlla delloo la da ngay gis ne bañ bañ bañ investir suñu stade ba tabax ko si la coupe bi ñëw kon damay ñaax euh, fédération bi ñu ñu ñu financé ci football parce que ya football loo si def rek da la koy delloo amul sikki sàkka nañ defar stade yi gars yi investir si football football avancé geneen coupe dina ñëw incha allah. ñu sérieux parce que gis nañ équipe bi ay Moussa Naam. ay ñoom ba gi ne yëpp jàmbaar nañ ñu leen di leen gërëm waaye Boubacar Camara démb dafa woon ni dañ ko war a convoqué ay ñoom Sofiane Diop nañ dem jël leen ko dañ ko du moon soxla da doon soxla un numéro bu nekk di séddale jeu bi na trop gé nañ gé la manière gagné nañ mais lu ñu soxla vraiment ak li ñu ak li ñu bëgg a yóbbu coupe du monde duñ ko a seegaat message bu leer jàmbaar nga jàmbaar ngeen yéen Zori jàmbaar ngeen yéen yéen staff bi mel ni leen ñaan ngeen gën a convaincre xam Zori parce que Sénégal boo defee trois changements amatoo beneen solution pour dugal ko boo def boo génnee Ismaïla Sarr boo dugalee Ismaïla Sarr boo dugalee euh, Pape Gueye boo dugalee Bamba Dieng amoo keneen koy dugalaat ay jon lépp nañ am yooyu nooy koy solution woo leen ñu Zori tax instant ay équipe nañ dans au classe mondiale lañ ko war a xam bravo aux, aux, aux Sénégalais, bravo à Aline Cissé, Boja Boja yeah seen baay ñëw. Ah, alhamdulilah. te naka la. Mamadou Diop. kañ nga fi ñëw. ay huit heures laa ñëw ba léegi. léegi woo añu. ah. léegi woo añu. ba ne dara nekk sama biir bi. naanoo sax ndox. dara dara. torop kay mais jaroon na ma ko équipe moo ko jar ah xanaa kontaan ñaan yàlla affaire yi mu jig mu jig ni quoi. yéen ñi doon xas euh, coach bi xanaa da ngeen ko fi bàyyi wala ngeen ko fi jëlee. El eh, Cissé ah comme que Sénégal benn coach mus jël coupe moom mu ñu jël coupe kay. contrat yi day yokku. yi meloo nem. ah loolu kese la contrat bi. di soppeeku di soppeeku ci. noonu la affaire xam soo bëggee rek da ngay wax li suba bu suba nga wax le waaw mooy lool maa soppeeku nii de. ay saa ñu ñoo moo aay léegi. waaw a kese la amul leneen. ah mi salminima. ah mi selli <laughs> ok vraiment to gommi ɗo ko weltare weltare normal min gondi vraiment ko hunde nde meeɗat ɗaminede depuis yimɓe jettiro bi vraiment min meeɗat miijatno affaire o wayni mais affaire o sakkede mum vraiment min belti normal vraiment ko coupe du monde o ara inchallahu rabbi ɗulen war ka laaj dara apéro soit Fouta taw soit Fouta ko publicité ça c'est la publicité le film n'est encore commencé parce que le film c'est la coupe du monde la coupe du monde film bi oh, allah min jetti allah no feewi ko weltare ganda hoorema ko hewɓe padanno hannde e sénégal ko minen oɗo génération ko minen kawri hen ɗum noon ko yettere allah sa e hannde hannde mboɗo wawi wiide eh, guila to autoroute o haaga ko yimɓe ɓolɓe hannde ala to heddi eɗen ñaago allah rek noon ko sen gimmimoɗo kadi eɗen keddora yo allah hokken kadi kuɓɗu mum ɗo sen payi hen allah hokken kuuɓo allah hokken artirɗo e kuuɓe inchallahu rabbi kan allah ne wawi ɗum yo waɗanen ɗum machallah conta allah jaram ko merci ñu ngi lay fay soxna si tur la maa ngi tudd Kora Kora waaw dëkk HLM Rufisque Rufisque nga jóge comme waaw ñu ñu ngi jóge ba Tëngéej nga ñu ngi fi depuis depuis treize heures ah. treize ba tey año non añu ma añu ma. waaw waaw gisoo jeex na nii sax ba suñ copain dem na jënd waat ndox. waaw mais parce que Sénégal moo ko jar fi mu toll nii quoi. waaw man su ma. non découragé wu ma. j'étais trop confiant. non non non. confiance bi si suba lañ ko xëyee. boobu loo def loo woon naa carrément aussi. boobu sax dama ko gëm. coupe bi avant match bi gëmoon naa ne Sénégal day indi coupe parce que yàlla mënu woon neenal busu démb bi démb du woon bésu perte parce que yàlla démb. non match bi certes metti woon na trop mais teewul. Lions yi ñooñu ko gënoon bëgg parce que démb wane nañ fulaak fayda ak engagement total ba tax na jénnee nañu yeewi nañ askan bi liñ doon xaar si ñoom yëpp démb defal nañ ñu ko te yàlla bésu démb du woon bésu ñàkk xam nga dafa am bés boo xam ne pour ñàkk la mais démb du woon bésu ñàkk parce que xale yu ndaw yi sax dañ si bokkoon xam nga xale yi xamuñu sax la lañ gañe mais démb da ngay gis xale yu ndaw amuñu xaalis xam nga banderole di jaar 1000 francs sax dañ koy jënd kon yàlla démb nee na lu bés bi te fi mu toll nii li ñu bëgg li ñu bëgg mooy Égypte dina fi ñëwaat te dinañ ko gañewaat incha allahu rabbi dinañ ko gañe qualification mondiale ñu ngi leen di xaar te incha allahu rabbi dinañ ko dóoraat aller retour Sénégal na moo ñu ñor moo tax fi mu toll nii ñëpp kontaan nañ di ñaan nag jàmm yàgg Sénégal tong moo ñu lii boo gisee tey Tëngéej lañ doxee ba fii lépp pour jël si coupe bi yóbbu donc on est fiers d'être sénégalais parce que le Sénégal nous a fait ce que nous sommes aujourd'hui donc vive le Sénégal et encore le Sénégal pour toujours du France du Éthiopie Sénégal dong la on est là et on est fiers d'être sénégalais merci beaucoup waaw kon gis ngeen li ñu yeen wan si fii fii daal nee naa ko ci gàttal daal kontaan nañu man mii di leen ko doon joxit mbégte laa doon àndal rek nag di leen ko jox ndax xam naa ne fi ma leen fek yéen a ngi bég kon noonu nag lay daal di tëjee tàggoo te naan leen pareeguñu de dañuy tëj rek waaye ba rek ndam li day continuer nañ leen jëlali concert na leen jël di ngeen gisaat gisaat gisaat gisaat gaynde yi seen arrivé lépp da ngeen koy gis nii teg ci seen bët xanaa léegi xam ngeen beneen côté ba ka fa nekk fàllu la ak Khadija ak Ablaye Wan ak Faj Diop ñoo nekk ca beneen côté ba jëlee leen gaynde yi mu doon léegi léegi dijee laa àndaloon ci caméra bi dijee na moon naa la sama xarit bi oh kii moo ko nam mu may cadre nii may rafet waaw kay ma daal di ànd ak Fatou sama xarit moo ma assisté comme dama naan leen dëgër la moo leen ko doon jëlal fii ci aéroport Léopold Sédar Senghor ci montage bi kooku benn la e kontaane naa la de jaa ngeen jëf ba beneen yoon